registre bureau numéro un kooku lu ma koy souligner noonu rek mais y' a rien d' c'est pas un incident donc certainement ça sera yi di ñëw message bi ci population bi morale bi fu mu toll. non xam nga ñu ngi sant suñu borom parce que euh, ñun dem nañu fekk askan bi waxtaan ñoom ñoom ñu ñu dénkoon ñu sàkkuwaat pour ñu dénkaat ñu te ci lu ma gis aw ci benn jafe-jafe bu ma ci xalaat moral aussi xam nga moom nit ki day def sa devoir. sant def sa devoir lu ci des suñu borom moo ko moo ko yore donc vraiment sérénité totale et absolue nga ko amu ci. affluence bi ni mu daan amee tey dafa mel ne xaw na am tuuti wàññi ko wala. non xëy na ci suba si nii la parce que nit ñi mën nañoo jël seen temps d'autant plus que tàngul donc gëm naa ni balaay bureau di tëj léegi 18 heures affluence dana yokk taux de participation bi gëm naa ni dana yokk parce que nit ñi nu ma gisee nu ñuy adhéré. ba ñuy def campagne di dem ci ñoom di wax ak ñoom gëm naa ñu képp ku ci am carte de carte carte électeur mu disponible nga am sa voilà sa sa carte d'identité mu disponible di nga ñëw voter neex yàlla. jërëjëf merci merci beaucoup euh, Babacar Niang c'était à l'instant le ministre Mansour Faye moom mi euh, voté na ba pare xanaa di ñaax euh, électeurs yi ñu génn dem voté ci bu ñu jugee fële ca Saint-Louis dañuy daal di dem directement fële ca Guédiawaye ànd ak Racine Ba mu di candidat bu coalition Gëm sa bopp ñu daal di koy déglu. Si, si. Alors, M. Racine Ba, vous êtes euh, candidat pour la ville de Guédiawaye, mais également pour la commune de Golf. Vous, hein? vous, avez pris le temps de visiter tous les bureaux de vote. Si on devait retenir quelque chose, dites-nous quelque chose vous avez constaté sur le terrain. Oui, les quelques manquements que j'ai eu à par rapport aux missions, c'est les enveloppes. Il y a des, elles sont un peu disproportionnées parce que j'ai vu que les enveloppes de Gëm sa bopp sont un tout petit peu De sorte que si nous notons les paquets, par paquet les gens auront l'impression que les listes de, euh, la, euh, comment dirais-je, Benno Bokk Yaakaar en train d'être pris, alors que c'est pas le cas. C'est les enveloppes, euh, c'est les, paquets qui ne sont pas de taille égale. Et ça, c'est un manquement majeur. Je demande donc à tous les mandataires et de veiller ce que vous avez signalé ça au de la préfecture Partout où je suis passé, j'ai demandé à nos représentants, à nos mandataires de faire des mises à niveau par rapport aux polices. Mhm. Alors, concernant le, déroulement du vote de manière globale, qu'est-ce que vous avez constaté et peut-être quel est l'appel que vous voudriez lancer à l'ensemble des acteurs politiques et des citoyens Oui, remercier d'abord les forces de l'ordre. J'ai vu qu'il y a un déploiement massif, mais inciter les acteurs politiques à savoir Sénégal nous appartient. Je crois qu'il advienne, on peut avoir raison gardée. C'est l'histoire d'un jour. Elle est certes importante, elle détermine l'avenir de la nation, mais il ne faut pas prêter le flanc et tomber dans la violence, aussi bien verbale que physique. Euh, Racine Ba mu di euh, candidat bu coalition Gëm sa bopp foofu ca commune euh, foofu ca commune Golf ak Guédiawaye amit tamit am nañu tamit réaction wu ko ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Pouy maire sortant bu Mbao bu fekkee baax na rek ñu daal di déglu réaction moom tamit xam nan la voté. Abdoulaye Pouy ci mairie Mbao bi ngi nii woote na ba pare ci Mour Seck mu ngi wootee bureau numéro 2 monsieur le maire ñu bëggoon xam sa gis-gis ci vote bi mu ngi mu ngi dox wala am na ay jafe-jafe. waaw ça se passe euh, donc apparemment ou plus ou moins bien parce que euh, nit ñaa ngi voté mais a un grand problème au bureau parce que c'est plein de militants transférés et vous-même vous avez vu. donc orchestré On a même eu à prendre euh, notre siégeant, Brahma Sissé, que les gendarmes ont Je ne pas euh, un gendarme qui puisse amener donc un représentant d'une coalition et que cette coalition reste dans la salle sans représentant. Euh, je me dis que juste parce qu'il a contesté que cette personne n'habite pas la localité, il doit pas voter. dans les autres bureaux, les anciens bureaux, euh, c'était déjà plein depuis, il n'y a aucun problème. Mais à ce bureau, il y a des problèmes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transferts. Et c'est quelque chose que nous déplorons. Vous avez vu les renforts des gendarmes qui sont pleins dans la, dans la province, comme si on était dans des élections présidentielles. Et même c'est tout ça encore. Vous allez en Daïmari, vous, vous allez voir tout le, tout le dispositif que euh, ici, ici on était en guerre, ils savent ce qu'ils ont fait. C'est dommage, mais c'est ce qui se passe.